si biir Sénégal TV a Jël bi TV ak Kewel Info ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di am mbégte kontaan comme ni ñu ko defee sax di leen toppal daanaanu lamb bi ak ñu bokk ci lamb ma waral tey ñëw fi nga xam ne mooy équipe Falaye Baldé seet si am solo ñu def 14 diggante ak euh, ki nga xam ne mooy Moussa Dioundo bu Parcelles gis nañ nag entraînement bi nga ni def na ko di préparé pour la 14 dañ koy bàyyi mu nuyu ñuy suivre su si ñu lay nuyu di la di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama di nuyu waa Pikine yëpp di nuyu sama waa équipe fi ma nekk yaa ngi toog sama ginnaaw ñëpp xam nga di nuyu sama kër si jëm sama papa sama ñëpp di nuyu baax bu baax di sant sama yaay bu baax di sant sama yaay bu baax di ko satal di sant waa Manchester euh, Boy Jules fan nga toll ci wàccaay waaw daanaka noppi nañ de mhm. xam nga adversaire bi nga jël. waaw lam moom koy bëre la koy mhm. xam. moom tollatuñu di yàlla yàlla may xam nekk ci moom. non gisuma ko sax wax dëgg yàlla sama bopp laa xam. Ah, pourquoi pas. non sama xam. Mhm. diggante wu ma mhm. ñenn ñu ne booy jël combat bi seen nekk risque bi mu ko jël ak mu toll ci carrière bi. waaw boo bëggee jël nga ko coow lu bari yaa ngi ci wàccaay bi actuellement wàccaay bi naka lay doxee. waaw waaw non du coow sax coow moom yàgg nañ ci loolu. làmb ak coow ñoo ànd. waaw wàccaay bi ñu koy waaj rek ni mu waree rek waaw li nga xam ne moo ñuy may ndaw. dañuy waaj incha allah. gars yi ñu ne ba léegi dër bi génnagul ñu fi gën parcelle ngay bëre ki nga xam ne parcelle la nekk gis nañ keroog dem nañ seeti ko foofu ca jàmbaar ñu entraîné ko waa parcelle ñëpp dar ko nekk ginnaaw ñu ko jàppale pour le ñoom ñoo ko jàppee parce que ñoom ñoo suul woon ba nga dañoo suul woon waaw parce que indi ba fee ay dër ay affaire yooyu. non la. man ay dër bi yooyu noonu garaawul. man xam nga lan moo ma ñor. ndigal. Mhm. ndigal dong ma ñor. ndigal moo la ñor. te incha allah bu suur baax dinaa leen wan ne ndigal moo ma ñor. Mhm. incha allah di nga ko wane ci kaw. soobee yàlla ndax dina yomb

dafa bokk sama yoon daal da nga ko war a tracé waat incha allah dañ koy fekk uh-huh. matu moo question uh-huh. moment bii nii combat bi xam nga important si carrière waaw waaw combat mm-hmm. raw ci waaw moo ci raw mm-hmm. waaw parce que actuellement ci loolu la mm-hmm. ci bii moom mooy bi ñuy préparé yàlla yàlla defal ñu ndam incha allah dañuy gis jël ba muy soog a débuté nekkoon ci lancé am solo dëkk ci ay séeréer ak ay jinaan yi mais dañ jékki-jékki yoon bu xaw a taxaw lan la waaw lépp lépp fu borom la rek nit ku nekk moom nii sa des da nga si jaar mhm. yàlla moo dogal moo doon dogal en tout cas daal bàyyiwuñ benn yoon loolu bu ndogal amee mhm. parce que yoonu ndaw bu baax bu gaaw mais daal li ma mën a wax mooy loolu indiw ma fi loolu dépassé naa ko suñu mu saa di bàyyi wax mhm. te jour boobu maay bëre maay daan mais li ma jaaxal yéen ñaar da ngeen a xawal loo maatool tuuti te nee na bu arbitre bi li ne yëpp moo koy def waaw amul problème yàlla bari na sutura ba jour ba. li koy def moo koy def. Hmm. ba jour ba. Hmm. incha allah mu ne da ngaa juumee avance wala woon lekk <laughs> yàlla bari sutura dañuy ñaan yàlla yàlla defal ñu ndam rek. Hmm. moom loolu ay waxi mbir la rek. su fekkee moom loolu ay waxi koy def te bu jour ba incha allah buñ sumee ko dinañ xam ne diw entraînement te bis bu ñu dalee ci kaw dinañ xam ne billaahi wallaahi dama gis keroog ay gargaare ay franc. Papa Sow mayuñu ko càmm si ko teg lu méttee métti. waaw parce que xam nañ ku ñuy dajal. moom xam nañ ku ñuy moo tax man du laa teg sama hmm. man Franc moom laay xool. Eh, non na nag mais yéen mais yéen. déggoo li ma la maa ngi gis tungu boobu noonu di wax. <laughs> nga gis moo ay zil na na waajal xeex beeg na def yooyu. non moom kay fi mu toll yëpp garaawul. Uh-huh. yooyu yëpp garaawul mais bu jour ba moom ah. bu leen neexee mu indil leen ay sët ñu waajal hmm. waaw benn par benn benn par benn mais ñoom combat bi nee nañ ñor na leen à cent pour cent ñun ñoruñu waaw ñooy daan hmm. waaw foo ko teg arbitre bi léegi mu ne yéenay daan waaw bu soobee yàlla yàlla bari sutura liggéey nañ ko hmm. waaw liggéey ngeen ko gëm nañ ko tamit loo ko yóbbante moom waaw ba na ñëw daanu rek ñëw daanu na ñëw daanu daanu bu baax mu toog quatre ans bëreewul a ñëw relancé waat am ñëw daanu loolu may leen koy si waaw léegi man bi nekk xale yi nekk ci yoon war a dem waaw léegi man paa boobu moo may tee paa nee na nee na yow moom magu la dafa sa xel ci loolu nee na yow moom magu la kii day foofu na quarante sept ans daa def jugement non quarante cinq ans boo ko amee doo bëree doo ma bàyyi sax daa <laughs> waaw waaw waaw incha allah lépp loo xam ne nii dinañ ko def. mobilisation pour mobilisation dinañ ko def bu soobee yàlla. parce que yaakaar naa tey jii bu ñëwee làmb xam ne suñu xam na combat bi important. waaw incha allah yàlla ma déglu yàlla nu yàlla taxaw rek defal ñu jàmm mooy man dam may Zago Baldé def ci kàttan. waaw combat la rek ah comme yeneen combat yi. boo dugg rek man bu déggoo ma bëri naa champion bu nekk boo yëmbal rek mën na mën na lekk kooku bu benn dañuy waxante dëgg Pape Thiam du moroomam comprendre nga kon làmb moo tëral yi xeebu moo ko nag sama nawle la comprendre nga mais incha allah bu jour ba dinaa ko teg lu méttee méttee métti ñu hmm? may dégg laay waxal bu jour ba sampal jaaga ñu samp ñu nàmm loxo yi ñu xool man ak yow kan moo ciy delloo avance ak kan moo ciy lëkkat. non moom nag moom problème tey day reculer incha day reculer day daal. foo ko teg yow booy ci loxo yalla hmm. ak gëm ak lima ma liggéey gëm ko hmm. inshallah mais fukk bi ngay doxé ak euh, confiance bi génn si yow ni lan la waaw wala qu'est-ce qu'il y a parce que luñu ñu liggéey la rek hmm. ñun fi entraînement lañu xam entraînement lañu xam ah te temps yi nag équipe Falaye macha allah ma sha allah ni ñu <laughs> entraînement la ñu xam comprendre nga waaw ñu ngi ñu ngi liggéey tous bu baax waaw tous bu baax band sori na fi de sori na fi de xam ni ñu band lañu tok eh. comprendre nga eh. ñun fii amuñu entraînement ñu luñu am rek liggéey moñu ko may ak alcorane amuñu leneen loo xam ne ni dañ koy gëm ñun balaa dara xew dañuy liggéey ba pare toog mhm. comprendre ñun du ay Moussa Dioum man avant Moussa Dioum pare naa parce que maay woon ci àll bi di mbapat ma ah. ci tournoi comprendre mhm. kon moom du moom moo ñu jaaxal mhm. te bu ma bu ñu jàppantee ma daan bu hmm? ñu jàppante ma ko daan mais yow lan la yaa ko dàq bëre wala qu'est-ce que li ma liggéey laa gëm du cadre dàq bëre wala dara man góoma ay moom lu mu indi man li ma indi incha allah dama koy jëfee dal ci kawam daan ko di ñibbi ci kàttanu yàlla mais punkal yi may ñu ko dara gëwuma punkal yooyu man ñi ma am naa ay Babacar Balde ay Jacob Balde ay ñoom Pape ñoom Souleymane Mbaye. ay léegi moom nee na am na Franc am na am na Papa Sow. déggoo li ma la am na ma la waaw man am naa Baye Fall yi ay Souleymane Mbaye comprendre que ñoom Lengs ñoom Jacob Balde. Zil Balde sax day sibeeku di contact. Zil Balde ñooñu laa am man ñooñu laa doyloo man góoma ay Franc góoma ay Modou Lo góoma ñooñu. Mm. damay ñaan yàlla dajeeg ñoom comprendre nga. Mm-hmm. noonu la demee. waaw gars ñoo ko jàppee dër bi de dër bi la kay. Ah, ah. gars yi ñoo ko bëgg a jàppee dër bi rek. barke Sëriñ Fall hmm. waaw mais nag waaw comme que dër bi la loolu ko gars yi jàppee waaw bu soobee yàlla incha allah. dañuy gis sa frère semaine bële paase mu génn ci combat bu solo muy paa bi sox bu ndaw. waaw waaw petit loo jël ko jël ko rëy muy parcelle Pikine nga war a bëre waat ak mbëru parcelle. non garaaw dama koy fay borom rek parce que daf maa lebal. 2-2 lañ saa 2-2 daf maa lebal. waaw. wala dëgg boo yaa ngi wax yow. booy nee 2-1 la. waaw gis nga xam nga. yooyu paa bi comprendre nga. moom champion la. comprendre dafa ma lebal ndam hmm. te bu soobee yàlla mu ngi nii toog dinaa ko fay ndam soobu sëriñ fay ndam dina lebal dafa ko fay voilà hmm. hmm. loo jàpp ni moo jeexal sa diggante Moussa euh, Dioum waaw li ma liggéey laa imposé rek waaw li ma liggéey bi ma koy jeexal métti ko bi xeex bi wala bëri non lépp lépp incha allah waaw Moussa Dioum dégg nga Moussa Dioum da ngaa juum nee nee na nee na yow yaa juum ndax waroo ko woon Moussa juum da ngaa juum barke si ah juum juum da ngaa juum ba pare juum <laughs> <laughs> eh, waaw looy wax looy wax promoteur bi di ndaw investir xaalisam bëgg réussite ci mm-hmm. a a waaw di sama sëriñ sëriñ Cheikh Fall Mbow di sant xama waa Paalen yëpp maa leen sant géwal yëpp nag maa leen di bëggee bu baax marché zinc monsieur yeeg ñëpp maa leen di bëggee ma fi suus bi comprendre nga waa waa waa lees maa leen di bëggee bu baax a baax waa xama kàpp ñëpp maa leen di bëggee kàpp yëpp comprendre nga yëpp maa leen woo ci combat waaw di sama commune Baye Sall sama staff ji di Diouf aada sama gars yëpp

maa ngi koy woo ci combat bi ñu jàpp ci bolo gi. Thierno Ndom Thierno Ndom Ba maa ngi koy woo ñu jàpp ci combat bi bu baax a baax comprendre nga di woo képp koo xam ne nii supporter Boy Jules nga ñëw jàpp ci combat bi bu baax bu 14 ñu yeggali li ñu war a def ci kàttu yàlla yàlla sutura ñu may ñu nag bu baax a baax waaw damay santaat Jules Baldé ma ne nag waaw sa turando waaw dama koy sant bu baax a baax mhm. bila xam nga amul temps mais daa jël léppam ndax ñu daa jël léppam gis nga boo heure bu ñëwee fii nga koy fekk mu toog boo ñëwoon entraînement sax dalay woo te pourtant suñu njëriñ la du njëriñam de billaahi kon nañ koy sant bu baax a baax Souleymane Baldé suñu Baldé yow amuñu sa fay yàlla la yàlla fay ci barke Seydina am yàlla na suñu Fall taxaw jaajëf booy jaajëf merci